Gabon Production Académie Médène TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise. liggéey bii junior loo mi nga junior loo mi nga xamante ne nii moo koy coordonné Serigne kepp képp képp képp képp. wallaahi wallaahi bu fekkonte ne nii leneen la ci jublu heure bii bàyyi na ko bu yàgg defi leneen waaye dafa xam ne liggéey bii liggéey bu Serigne Touba teg ci loxoom la. mu yor ko di ko doxal waaye nag moo ànd ceeg ay jàmbaar yu koy jàppale ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaawam bi waktabaytu bii wala suadiya xay العلم والدين gu am solo gile di Mawahibul Akyas comme ni ñu ko baaxoo di defee ci at mu nekk ca pàkk bu sell ba di xel koom ren gile di seen juróom-benneelu édition bu ñuy togg ay xéwal lu toll si 99 mbana si ay plan yu wuute di ko séddale si biir daara yi nekkee si diwaanu xel Xelkom aljuma ñaar fukki fan ak juróom si weeru novembre si la ñu door la géey bu am solo أخزى سوى مليكي لأنه ñu koy jox kenn ci membre yi bokk ci kuréel gi di Mawaahibul Akyaas seen jile ñu ngi fii si Touba ci kër soxna Fatma Diop fi lañ doon amale liggéey bu am solo bile lu toll si fukki nag ak ñeent ak benn giléem la fa fas yéene lewetal ngir mu dem si jàmbaar yi nekk si wa sa Touba ويلوعا وعلي لمن عجيت عنا لأنفسهم عز المشاكين أو كيف يأخذني حب العتم إلى جوار من دون القول سيأتيني إن كنت زعدا أو كنت زعدا دعوت ذا العين غاب لوائي وزير يكون ما سأيتك بني إن زادك إلى أمر كان ذا عجل أو زادك إليه يبتأ إليه يا ما يلوح أبصر وأنا عزيلي إذ لست من فقديدي دنيا بمعزوني إن كان بيزون في أدمي فذاك عيب في sun ليس يخزيني إن كان عيبي زهد في أدمي عيب فذاك عيب noo ngi delloo sant yàlla bu baax nag ndax daaw moo nu mayoon nu fekke ko nu taxawal liggéey bu toll nii nu ñaanoon ko it bu déwénee nu fekkewaat ko mu may ñu ko ci coobareem ci mbaaxam ci sañ-samam ñu ngi ko ci sant bu baax moom boroom bi di ko gërëm te di ko ñaanit nu fekkee waat déwén te weesu ko wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax ci liggéey bi ndax nun moom xanaa tur la rek waaye doonuñu ci dara lépp yéen la rawatina ki nga xam ne moo ne ci bopp bi muy Moustapha Lo Junior te ànd ak ñëpp mbir mun a ñàkk bopp waaye lii ki ko xool xam ne du liggéeyu kenn nit. ku ko xool xam ne du jëfi kenn nit kon képp ku ci jàpp mbaa nga amoon yéene jàpp ci rek ak noo ci jàppe nag toog fa nga toog sax na lii rafet la wala lu baax la sax ci jàpp yi bokk te borom bi tax nga di ko def ak sëriñ bi gis na ko kon ñoo ngi sant ñëpp mënuñoo lim ñëpp am na ñoo xam ne sax mën naa ne Moustapha xamu leen wala keneen wala keneen ndax jëf yi fu nekk lay jaar ñi nga xam ne it yàlla dogal na yëkkati nañ seen alal ak seen xalaat rafet indi ci waaye ñi nga xam ne ñoo koy sottil mooy ñi fi nekk ñii ak ñeneen ñi ñëw mooy ñuy togg ak koy topp toog ñi def nangam ba bañ koy jébbale kenn ku ci nekk jàppal ne lu sa morom def rek def nga ci lu ko ëpp mbaa def nga ci lu toll ndax mbirum mbooloo moo mel noonu kon ñoo ngi sant ñëpp te di leen gërëm te xam ne daal képp koo xam ne xalaat bi dong rafetlu nga ko waxumala ak nag sa alal mbaa sa jëf mbaa sa jot mbaa sa leneen nga def ko ci rek yàlla na sunu borom fay lu kawe sa njort. ci barkeb sëriñ bi te nañ ci njort bu baax ndax defuñ ko benn defuñ ko ñaari boo gisee nangu ñoo weesu limu 99 bi nag lu bari dañ ko umpale euh, bi ñuy mujjee togg te togguñu 99 dañoo defoon 92 bi ñu demee ma leeral ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mu ne bu ëllëgee def leen ko 99 mooy turu Saliou te loolu ndigal la booba léegi nag ñi ngi sàmmante ak moom yàlla da ci def ak jàppandal nag gis ngeen tawféex yi ni mu bare macha allah lépp sëriñ bi la rek lépp sëriñ bi la. Moustapha nag moom mënuñu mënuñu mënuñu ko fay ndax wax dëgg yàlla lii ba mu koy xalaat boobu egsi wutoon fii waaye xaritam yeeg àndandoom yeeg ñëpp kenn ku nekk jàpp ci ba mu egsi fii tey moom bu ko bu ko xalaatee it wala mu koy coordonné it fii mu egsi tey xam nañ ne jëfam kese egsi woo fi kon képp ku ci jàpp ni ma koy waxoon nag ñu ngi lay bu baax te di la gërëm te xam ne lii moom xaw ma jëf jiw takk waaye jii du ci bokk fi mu jëm am na yaqin ne moom képp ku fa sa dugal sa jëf ak lu mën a doon sunu borom dana ko nangu te dana ko ful rawatina nag nga jëmee ko ci bernde ndax kat sunu royukaay ci ci ci yoonu Serigne ti yi mu bi Ibra kenn ku nekk xam na ne daan na wax ne ndab dabe kenn ku nekk dégg na ko te xam na ne moom bi muy ñëw ci yàlla seedal loolu bi muy ci sëñ bi amoon na ñu ko fi jiitu ci bi waaye tey kenn mënul tudd sëñ Tuubaa tudd sëñ bi la kon dafa dabe la mu ne nag mooy dabe nag lii lii bokk na ci muy bernde kon nañu rafet njort te gën a góorgóorlu gën a jox suñu bopp sëñ bi alal adduna ji bu ñu ko yàlla jox kat pour ñu liggéeyal sëriñ bi moo tax. gannaaw bu ñu jëlee tàkkusaan ba noppi kuréel gu am solo ji di Mawaayi bul ak ci la ñu liggéey bi taal mbana yi fas yéene fanaane togg ba asamaaw seet yaa zal jalaali yaa mutahali yaa يا خير وإليه أجب دعائي صل وسلم على المكلم والدعي عجم وذنبي عائي على رسوله أبي الوجود لنيل سؤله سلاما واسكن خلاما لي وبنائي يا ذا الغنى يا ذا الفنى خلي سعادة اقتداء سدني اقتداء yaakaaroon naa li ngay teg dina mais yow soo tegee ba teg 40 mën a ngay teg mais bii comme ñëwul suuf na jël añu daara yi ila jafaa'i tayyib masaa'i tayyib xanaa'i yaa zal wujudi kulli واجعل وجودي فوق العناء عبلي ودادا قل للمرادا يا من أفاد بلا قراء عبلي ودادا يا من أفاد بلا جهاد fukki fan ak juróom-benn si weeru novembre bi ñu xëyee ci suba si ci la ñu gaare camion yàpp si xéewal yi wutali sa pàkk bu sell ba di Xelkom ànd ak seen jëwrin ju ràññeeku ji di Moustapha Sy تميها فلتك في جوها لمن يغاي أنقذ يالي من الضلال وبالعلال خلي الصلاة الكتابا واقبل متابا يا ذا استواء يا خير ربي خير ربي طيبت قلبي بعد اتجائي صل وسلم على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عاسم بلا انتهاء كان يوبوة الفبس بندكاي تجوية سنزاله كتدك تقكو أو كان يوبوة الفبس بندكاي تجوية سنزاله كتدك تقكو muy di su ngeen dégloo ma jaaleeti leen koy ka doon Sëñ Tuuba te mbootam mu doon ko ma del seeti jooy sa waaja saab sang saab sëriñ boom nga boo xel koom ka ja jooy ba xottiku jugal way ka fees sab xol barem bat ba sax lu dul moom amul fum dem ci sab xol te sant ko wayal waajate yow mi nga nekk ku weew ku bon ku ñàkk boromam boo yeboo sax ci bëgg ko danaa way ka tax man mi ma doon nit te doon ku yiw defal ndànk rek tey ji danaa wax ba dajjiku danga war a dëkkee sant ndax mba mu mel ni moom nga nekk di ab dongam li le màgg seetlu ko damay maasiyal tey yoonu ñaareel sama sëriñ borom jannatul mahwa turam ku ne xam na ko awaay Mbàkke yaa weetal nun nun ngi weet a weet sa dem gi le mooy mbas kuy julli loolu yëg na ko dañoo mujj mel ni bli yaayam ja xëy mes mu dëkke di kenn munta nax ba mu bàyyi ko sëñ saali woo baay sëñ saali woo baay sëñ saali woo baay ci ñun ñi teew na ndey xanaa misaal rek la ko def daal ci xamle ko. mu def convoi bu mucc ayib déparé fii si 28 si buntu kër Serigne Thierno Diouf Lambaye jaar fii si rond-point ancien garage Dakar jaar tali bu bees dem yoonu Daaru Rahman def direction ak Xelkom. Serigne Saliou woy koog noonu fu nuy jëm fu mel ni moom. gannaawam du am moo xan mu joojale jàpp ko bisam booba mooy ab bis bu dul fel ci xel yi mukk kew ko dajel muy ca kaw yàlla xam na ko demam géeg demub yonen ba ñoo bokk menn mbir bamba tey ji daal la ñuy ñàkk ko nasaaba ya fàddoo woon ba fàttini sun borom lanuy jaamu dub yonen abubakir xamle ko nasaaba ya faddoon ba fàtteni sun borom lanuy jaamu dub yonen abubakir xamle ko kew xew na maa gis nit yu saalit di jooy ca kaw mu waaju naa gëm leen borom bi te tudd ko mu am waaju naa toppal nga naanu gëm gëmun fenn tey ji yàlla kenn du fi sant ko sëriñ Abdu na saaja mu ji di ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem mu wiitu ko sëriñ Abdu na saaja mu ji di ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem mu wiitu ko sëriñ xabbaan sëriñ fallu kiimaan dem na xabbaana woo mu ya nekkoon fa moom naa na ngeen mooy ta fonk ko sëñ Fallu kiimaan dem na xabbaana woomu it ya nekk fan fa moom naa na ngeen mooy ta fonk ko sëñ Fallu kiimaan dem na xanaa xamu man mi bu sa ndaw gi delsi woon xanaa xamu leen bu sa ndaw gi delsi woon damay def ni yéen tey bi seen waaji topp ko xanaa xamuleen man mi bu sa ndaw gi del si woon damay def ni yéen tey bi seen waaji topp ko sëriñ Abdu Xaadir ne siyaar ko ndax dafay maye am peseef ndem amoon nga mu dolli ko sëriñ Abdu Xaadir ne siyaar ko ndax dafay maye pasteef ndem amoon nga mu dolli ko sëriñ Abdu neene xoon na saa jëmm ji di ba jenn toogal Bamba jee dem wiitu ko gaay nan sant Seex Saaliwu moom mi tax tey nu am xéewaloo tax tey nu am xéewaloo gaay nan sant Seex Saaliwu moom mi tax tey nu am xéewaloo mooy doonay Seexuna Alxaadimu góor gi jaar kokki jaar jéewaloo way waloo masta mooy lii di yoon waw masta tooñ masta juum fa waloo mooy xiyaasun lana qutbuna mooy mbégum gaayi nan jébbuloo sant sëñ bu mel ni nga mel yombuloo sant nan sant bu mel ni nga mel yombuloo waa tey xaay tey bég nañoo nguur gi it fal leen semmaloo wan ñoo jéngulu noppi geeg maanu geeg sàmmu gi noppi gi teewula yewlu tami yaag jàngale yel ci diine yaa ko dey gaayilan ya ñaalu ajuma bis bu màgg ba gannaaw fajar la sang ba julli ba doo weddu suba na mak jublu penku ba boobee la bu yàlla yebal malaaka ye ma ne mu jël ruwaam gu sell gam xamul gu ni moom ca dend ba malaaka maa ngay naaw di wey waa asamaan ya cey leer gi nga àndal moo kay xanaa imaam bu màgg ba guddi ga la soo guddi ga la doo xibaar ba tas ci mépp réew ma mel ni doguma ta yeew maag bépp donga bum fi ba ñun ñëpp mujj mel ni liir boo xam ni ak dundam ci weer la tollu nday jaxay ko réer mu yuuxu ek ta ba julli di ñëpp a ngi sangeem muy di ñëpp mujj luum ñeneen ñi sax ñëpp a ngi yeem sa gi ak li fi ba ñi a jooy ñi a tëb adduna bépp maase ëpp jël ya jib sikar sa jib ku nekk naan way sang ba koo gis mu naa la doy na waar du mën a sax wax wax ju leer xolam ba fees xelam ma réer mu dal jàll buntu ba nanu xalam ngën ji ay bay saal dellu xalam man ji kon xëy na nun nu mën a giif nan dal te ba sun dann ba waa ahlu bar sax kenn desul ñëpp nga jug di tatagal borom juul ak njàppundal Seex Saalihun xalifa ba daa ni maa ngi lay jineer ay bay saal ni maa ngi lay jineer ngay saafonte ngën jinaar ak xaadimam bu doy ba waar ci àjjanay firdawsi ba ñang lay jotal seeni ngërëm te naa la yow ndam li nga liggéey rek doy na ndam lislaam bi nga raaya ba waxal kanam tàndar liggéeyal Serigne Touba moom rek moo fi des ci liggéey moom rek la nit mën a nekk doo ko rëccu ba ilaa yawmi diin te bala ngaa xam njëriñam nga faatu bañ di bañ suul ñoom fukki simili ak juróom-benn moo bootu si fukki waxtu ak ñaar kuréel gu am solo gii di Mawahibul Akyas yegg si ci pàkk bu sell bi di xel Xelkom bi ñu yegg itam ñu jublu si liggéey bu am solo bi te muy wër daara yi commencé distribuer xéewal yi ci mboolem daara yi nekk si diwaanu Xelkom Abdullahi xundisilaa xamdan lillahi dogal di kaat naa buur yàlla mooy buur nguuram di mooy nguur waxam jamoor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooy xaacul jooy dëgg jot na dem de bu doon jaar ma di naam san waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dundoon junni bu tooroon adama sancoon adduna dem la yeneen yedikoon fii la romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem na ka julli woon ngeen laaj ka julli woon ngeen Cheikh laaj borom da ko wuy ji dem na adduna bee ku yóbbu konti te bañ a tee faat faat waxtu wey laa kii daal di sëriñ saaliw kii daal di sëriñ saaliw kii daal di meesu ko kii daal di sëriñ saaliw kii daal di sëriñ saaliw meesu koo jaam ka faw ci dun bi dem naa sëriñ saaliw woow ka ci dun bi dem naa rek sëriñ Touba ngay liggéeyal xitmaal sëriñ Touba lañ ci jublu wut ay bernde indi ko fi xel koom jaar ci daara yi yéen yaakaar naa yen ñi fi nekk yëpp gis ngeen liggéey bi nu mu demee amul folklore euh, folklore amul puukare dañuy dem ci daara bu laaj lan la ñuy bu ñu nee ñu ko gisee ne mbooloo mi soxla nañ ñeenti mana ñu wàccee leen ñeenti mana bu ñu gisee ne mbooloo mi soxla nañ ñett ñu wàccee leen ñett suñu gisee ne soxla nañ juróom ñu wàccee leen juróom suñu paree dañuy daal di continuer demaat ci yeneen daara loolu nag suñu ko mënee am rek c'est grâce à euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xamante ne nii liggéeyam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am yaakaar naa liggéey bi gis nañ ne at mu ñëw lépp dafay gën a yokk moo xam muy mbooloo mi moo xam muy berne bi waaye tamit moo xam muy pasteef bi ci taalibe Serigne Touba yi di wane ndax gis nañ ne ku ci ñëw ren bu déwénee da ngay yokk yokk googu nag mooy yokk xéewal yii nga xamante ne nii du ñu ko sante kenn kenn kenn ku dul sëriñ Touba Serigne Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul mi nga xamante ni nii euh, ñun génération bi nii yaakaar naa moom lañ gën a miin ci njabootu Serigne yi wax dëgg yàlla bari na lu ñu jàpp ci yoon wi bari na bëgg-bëgg bu ñu am ci Serigne Touba c'est grâce à Serigne Saliou Mbacké loolu nag mënuñu ko cee fay lii ñuy defa si néew dañuy jéem a nat na bi rek ngir dab ci ngërëmam waaye Serigne Saliou mënuñu koo fay ci Serigne Touba ndax ñun moom Serigne Touba rek lañ gëm moom rek lañ am te moom rek lañ jàpp te moom rek la ñuy liggéeyal ba tax na képp ku ñu gis koo xamante ne nii jot nañ ne suñ la liggéeyalee am ngërëmul Serigne Touba dinañ la liggéeyal te loolu moo valable ci sëriñ Saliou Serigne Saliou lu ko waaye defal Serigne Touba nga ko defal direct amul jàdd jàdd amul làq-làq loolu ñun ñëpp xam nañ ko fa romb na fa ak taaram xuus na ci seen diir ba jal dem xam-xam ba jooy am baax ga jooy am tag ga laay jooy sëriñ saaliwu dem jumaa ji mooy jooy këmil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem farata yaay jooy am sunna yaay jooy mën ba ngay jooy sa waaja dem na makka da ngay jooy madina day jooy lislaam ngay jooy sëriñ Salimu Dalaam xel da koy jooy ñaaroo da koy jooy juróor ngay jooy seen waaja dem na sëtam ba day jooy xayam nga baax jooy bu ñu egg itam ñu fësal ni seen mbégte rafetlu bu baax a baax liggéey bu am solo bii kuréel gii di Mawahibou Akyas di taxawu at mu jot wante ñaanal leen itam yokkute bu baax a baax tax na nun nu gëm yàggam ak wérug cërëm sëriñ Saali woo mu tàmbalee nu gën a gëm mu daldi dem te yëggagul ku di jullit joole ma sunu sang bi dem na bu na buñ ci sa taa sëriñ Saaliw yowmal xiyaam yowmal xiyaam la dayoo xamal jooy naa ko jooy xol yu faar faar man ñàkk naa ñàkk na rusufaar man ñàkk na man ñàkk na rusufaar sëriñ saali woo ñàkk na rusufaar nga yite yi di ñàkk nañ ko mag ñi gasa ak a ñàkk nañ fu ñu jëleeti sëriñ saali woo waaja daa ba bi ko nee ka tam tamal sëñor sama mbokk taalibe yëpp daal ñëw bu baax yéeg naa ma ñëw ma àndee ji bare bare ñëw dañ maa bëgg bàyyi daam sama xol bi sedd na du yox daal yëpp ñëw kontaan naa bu baax daal jërëjëf ñëpp ñëw ànd yow liggéey daal doy na ma sax barke sëñ Saliou sama xol bi sedd na bu ñu jugee ak seen xel teew na ñu biñ jugee waaye nag maag yow ko tàmbali woon moom bëggut yi bëggut yi jërëjëf jërëjëf loo sama xol bi sedd na guy yàlla la xiir ci Serigne Touba daal yàlla la yàlla bàyyi njabootam Serigne Touba gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama xol bi sedd na guy daal jërëjëf jërëjëf mais ñoom ñëpp dañ na seen place pas seen oto daw ay junniy kilomètre mais ngir taw fii rek barke am ci liggéey bi ren nag da ngeen di ko fasalal 99 yan yu sëñ Cheikh Saliou defoon nee na ñuy daw nag séddale ko xaar moo ci teg. ci teg di ko sant. xaar ne ñu ngi lay sant. gërëm di ko ñaanal suñu mbàkke. di la gërëm di la ñaanal. bu ñu gëstoo gis Serigne Saliou mi. nee bu ñu gëstoo gis Serigne Saliou balaa ñu baara. jaante loxoy sëñ Saliou soxna Fatou Sidi mais soxna maam Fatou Sidi moom sëñ Abdoulaye nekk satub Serigne Saliou mais nekk satub Serigne Saliou jàmbaar ju réew mépp law nekk soxna maam Fatou Sidi nekk jàmbaar ju ñëpp law nekk jigéen ju mat góor nekk jigéen ju mat góor moom maam Fatou Sidi dal na ci mooy mais sunu xol dal na ci moomi lakkaas minicar moom Serigne Saliou mais minicar mu Serigne Saliou ndoog moom at yu bari fii ci tool ndoog moom at yu bari fii ci tool Omar Omar minicar di jàmbaar ju mat yàlla aar yéen waa Mbacké yàlla na leen yàlla aar yéen waa Mbacké abdullahi xul bismillah xamdan lillahi dogal dikkaat na bur yàlla mooy buur nguuram di mooy nguur waxam ja moor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooy xaacul jooy dëggu jot na dem de bu doon jaar ma di naam sans waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dum doon junni bu toodoon adama sancoon adduna dem yeneen yedikoon fii la romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem ka julli woon ngeen Cheikh Bamba laaj ka julli woon ngeen Cheikh Bamba laaj borom da ko laaj wuy ji dem naa adduna bee ku yóbbu konti te bañ a tee faat waxtu wey laa kii daal di sëriñ saaliw kii daal di sëriñ saaliw kii daal meesu ko kii daal di sëriñ saaliw kii daal di sëriñ saaliw meesu koo jaar kafaw xari jaar ci dun bi dem naa sëriñ saali woow woow kafaw xari jaar ci dun bi dem naa di gént doy na meesu koo wax maa déggu ñuy wax sëriñ saali wu dem naaw moom di jikoom sax leefu ko jigéen ñi nag gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi man nañ ne wax dëgg yàlla liggéey bii nii ma gis muy doxe yéen ci sax man góor ñi waaw kon wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah kawe na lool te loolu bu amee yi tamit war nañoo am quelques noms yu ñu war a cité donte sax ku juum te liggéey bi tamit ñëpp ci yem ki ci def dërëm ak ki ci def un milliard ñoom ñëpp ci bokk yem ñun ñëpp ñoom ñëpp a yem ñun ñun pas-pas bi rek la ñuy xool waaye wax dëgg yàlla euh, soxna maam Fatou Sidi mhm. ak soxna Fatma Mm-hmm. wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi wax dëgg yàlla ba liggéey bi tàmbalee ba léegi lépp luñ mas a am bépp jot buñ mas a am bépp yitte ñu mas a am def nañ ko ci liggéey bi ba mu jeex tàkk loolu nag mm-hmm. defaluñ ko kenn seen bopp lañ ko defal ndax Serigne Touba moom ku ko liggéeyal moom moo lay fayal boppam moom du la boole kenn moom moo lay fayal boppam yàlla na leen Serigne Touba fay yéen jigéen ñi kontaan nañ ci yéen bu baax a lu baax képp ku mi ngi mel nag waxande wuñ jël tijji ku ne loo fa sànni ëllëg bu ñu ko tijji la nga koy fekkaat kon nag lu ci nit def bul ko gis bul ko naw bul ko yëkk jàppal ni sëriñ Touba la ñuy liggéeyal te mooy jëmm joo xam ne ku ko lebar ku ne mu fay la guddi ñun nag li ñuy wax nekk ay taalibe yu xeebu rek dañ cee am yëg-yëg ak luñ ci gis suñu bët moo tax tey ñu koy wax ndax bañ ko commencé ba tey chaque année ñi ngi ñëw mais at mu ñëw bu dellu si rek ñun yëg nañ ñun yokkute ñun ci suñu côté te gëm nañu ni ñuy yokkoo gëm nañu ñeneen ñi ñëpp tamit noonu la ñu yokkoo kon Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am nag géej la nag noo ci duggee rek noonu ngay tooyee boo fa yemale say tànk say tànk tooy boo sóoboo ba tooy xëpp nag doo ñee kenn sa àdduna ñu ne fas nañ ci yéene sóobu ñun ak jigéen ñi ñu àndal. ak góor ñi di suñu kilifa. Mawahibou Akyas yamul ci koom kese. bëri na ay activités yu muy def xëy na bii dafay activité principale bi maanaam dafay dafay dafay dafay dafay dafay activité principale bi maanaam day bi ci gën a mag. day bi ci gën a fës. waaye ndaw Mawahibou Akyas bari na ay liggéey yu muy dugal loxoom lépp loo xamante ne nii gis na ko muy lu jëm ci liggéeyal Serigne Touba Mawahibou Akyas ma nga ca loolu moom yaakaar naa. gis nañ ko gisati ko moo xam muy ci bisu xasida yi moo xam muy ci bisu sikar yi moo xam muy ci bisi Seex Mouhamadou Mountakha woote yëpp gis nañ ndawal Mawahibou Akyaas dugal ci loxoom ànd koog yeneeni kuréel loolu moom Mawahibou Akyaas daal Serigne Touba lay liggéeyal bépp liggéey bu ñu ko woo boo xamante ne nii liggéeyal Serigne Touba la mu dem ca ba jeex lépp luñ ko woo loo xam ne nag Serigne Touba nekku ca bu soobee yàlla kenn du ko ci gis. fa góor ña daa jaar romb na fa ak taar na ci seen biir ba jàll dem xam-xam ba jooy am mbaax ga jooy am tab ga jooy sëriñ Saaliwu dem jumaa ji mooy jooy kaamil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem la farata yaay jooy am sunna yaay jooy mën doo ba ngay jooy sa waaja dem la makka da ngay jooy Madina day jooy lislaam a ngay jooy sëriñ Saalimu Dalaam xel koom da koy jooy ñaaroo da koy jooy joor a ngay jooy seen waaja dem la tëm ba day jooy xayam ga day jooy ku nit ku baax jooy kuy ko dem la sëriñ nu ñeenti waxtu ci ngoon tegal tuuti si la ñuy yeggal bu am solo bi si daara bii di daaru tansi gannaaw loolu itam ñenn si jàmbaar yi taxawu liggéey bu am solo bi jëmale ci si taxawaayu kuréel gi ay objectif waaye sant itam mbooleem mbàmbur yi nekk ci biir kuréel gi di Mawahibul Akyaas. jooy naa ko biñ koy def boobu daayira amagul turu daayira amagul waaye biñ koy def ba ci yàgg Serigne bas moom Serigne Abdoul Khadir bi ma ne dañuy dox ci biir Touba sant Serigne Touba sol ay yëre yu weex tàll yëkkati nataalu Serigne Touba ci la ma wax ne ma tuddee leen ko kon Mawahibou Akyaas di ci liggéeyal Serigne Touba mais añi xel Xelkom moo jiitu Mawahibou Akyaas kon ñoo ngi ci sixième édition mbokk yi nga gis yaakaar naa su dee am nañu ci yokkit bëriwul am nañu des am na ñoo xam ne gisoo leen waaye ñii ñooy Mawahibou Akyas mbaana yi sa sëñ Baye Modou Yali wax na ko léegi première année bi euh, dix lañ amoon yéene def ko far am juróom wala juróom benn murid yi ko yëg ne ñu mujj def ko vingt cinq euh, biñ koy def vingt cinq def ko quarante cinq biñ ko defee quarante cinq def ko soixante cinq biñ ko defee soixante cinq def ko quatre vingt deux mbana ci la na nekk toq ci nopp Serigne Cheikh moom Serigne Salif ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér mu ne dem leen ngeen jël limum ñaari neuf yi muy quatre vingt dix neuf bu manqué benn dee leen ko togg di ko yóbbu daanañ ko toggee juróom-ñaari façon plat yu bokkut mais ren ak euh, <laughs> temps bi muy jël ñu yemale ko ci ñeent plat amoon na tufe amoon na petit pois amoon na ma ma ma li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ceeb yàpp ak mbaxal daara yi indi nañ sept daara daara yoo ci yu ci nekk woote nañ fa euh, dans une semaine ne leen kat bisub samedi bi dimbali leen ñu ko ndonga ya fa nekk barkeeloo ci ñam wi ñuy togg ñu nangul ñu ko doon xaar añ bi ñu xëy am na camion boo xam ne dafa chargé ba fees 36 mbana la chargé moo dem ci daara yi peut-être yéen sax am na euh, xëy na oto yu boobu gisu leen ko euh, oto yi ñu àndaloon ñun nag moo nekkoon ci dal yi ci dal yi la ñu yendu yéen ko gisandoo comme ni ñu koy defee at mu jot tasaare ko ci biir dal yi amul xaj ak seen. am na kuréel goo xam ne ñoo ngi leen di sant muy Lamp Fall leeral muy ndaw ñoo xamante ne nii gis nga leen ci wàllum yéegal ak wàccee. Euh, ñaari commission lañ leen organiser ñoom ñoo yor wàllum yéegal mi wàllum wàcce mi fépp fu ñu àgg dañuy àgg sotti mbanam bi jëlaat ko tegaat ko ci kaw oto yi ñi ci nekk daal damaa jàpp ne ñu bokki pas-pas lañ Baye Modou wax na ko léegi jigéen ñi démb dama leen di xool ba ci yàgg ñeen ni ma yërëm leen ndax barki démb ba suñ joon yàlla tey démb ak tey moom xam naa ne de barki démb ak démb xam naa ne gëmmuñu bët loolu nag lu ko gën a metti amul at mu njëkk bi sëriñ bi daf maa dimbali ma jóge bitim réew yor xaalis di waxtaan ak sama benn xarit ne ko damay dem def fukki mbana boobu la ma jàppoon mooy dinaa génne million ci sama pos def ko ba may ñëw di def fukki yi ñi ko yëg te bëgg lu baax ne ma déet saay gënoo ñëw bëgg lu baax yóbbaale ñu xon ñu def vingt cinq léegi nag suñ jógee ci vingt cinq di dem bay def quatre vingt kenn ku nekk di jaayante daayira bi suñ tool nii damaa xa damay bëgg a yaafus ndax gars yi romb nañ ma bu yàgg a yàgg maa ko sosoon mais romb nañ ma bu yàgg ci jëf kon su may toog fii di lim ñi ciy jëf damay juum kon du mat waaye ay murit yu gëm Serigne Touba bëgg ko bëgg Serigne Saliou lool jàpp ne astuut si leen yàlla suñ borom may war nañ cee mën a liggéeyal Serigne Saliou ñooñu ñooy toog du ma def ab su ma defee appel bi ba pare pare naa ci ku ci jëf yaa woote sa téléphone Moussa sama addiya ngi noonu de yóbbaale ma defaaleel ma ko ci mais appel la ñuy def wax programme bi ne nii lañ koy defee fii lañ koy defee ba sàngam lañ pare nañ ci. day wër ndax liñ ci jublu mooy que ni rek ñu xam ne kenn moomu ko yëfi ndawi Touba la doon nañ ko an bu njëkk mi fi ma dëkk lañ ko defee ñaari at yi ci topp ñu yóbboon ko kër Serigne Saliou Serigne Alaj Baara an mi ci topp soxna maam Fatou Sidi ñu koy nuyu bu baax baay moo Modou wax na ko mën naa ne jigéen ñëpp yóbbaale na leen géew nam cay doxee moo yéeme pas-pas ba mu cay doxee ak lam cay def du ma toog di ko wax. waaye ñu ngi koy ñaanal ndax daa jaay njureelam euh, euh, jënd ko taalibe euh, ñaari at yi at mu ci nekk su naan saso naa bis bi mooy njëkk a saso danaa ma sasoo nangam kon moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. gëm sëriñ bi te di jëf ci sëriñ bi am na ñoo xam ne dañ naa ma saay sama barkeeloo bu ko doomu adama dégg de lii de maa ko barkeeloo waaye xam nga ñooñu dañuy def te sëriñ bi tax ñooñu dañuy def te yàlla tax ni ci jëf laa wax xaw ma nu ñu toll. dama ne ñu defee appel bi parce que ñoom ñoo ma woo ma wuyu ñu ne ma sañ bi lii daa baax soo koy defete nañ koy yëg moo tax su ñuy def appel bi ñu yëgle ko ñett la daan ànd ak ñun démb ak bërki démb soo demee ñoom ngay dégg ci appel bi suñ defee appel bi ba pare pare nañ ci ku ñëw gaa ñi dem ku ñëwut gaa ñi dem kon xéewal yuñ fi jëlee yool buñ fi jëlee tuyaaba juñ fi jëlee yàlla nañ ko bokk ak képp ku dib jullit waaye képp ku dib taalibe dañuy toog rek suñ nee jàpp nañ bàcc mi bis sàngam soxna yi sasu góor ñi sasu ñun du teg di cotiser ci daayira de soxna maam Fatima daaw doon na ko soññee waaye dañuy toog rek moom mu daanub jël moroomam daanub jël keneen daanub jël noonu lañ koy jëfe mm-hmm. ba jëf ji mat daaw ñu ngi woon ci fukki xabban ak ñett ren ñu ñëw ci fukki xabban ak ak ñeent aku giléem kon loolu yokkute la mm-hmm. ak i ginaar boole ci liggéeyal sëriñ bi moo amul budget démb bi ma ñëwee fekk ñu séddale ndawal gi ba pare ab jal des fa dama ne leen nañ ko sottiwaat ci biir ci ni ndax sëñ bi duñ ko daaneelal ay xabbaan ba pare naan dañuy desalug ndawal loolu amut nañ ko sotti ci ci ni jërë ngeen jëf sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal yàlla suñ borom gars yi gën a waaw gën a pëseef bi na yokk waaw oto yi def ndànk yoon def ndànk dal ndànk ni ñu ànde woon ñëw yàlla nañ ko ànde delloowaat ca Touba ca Serigne Saliou Mbacké ñoo ngi ñaanal ñëpp Bienvenue dans votre maison de production GP Avec une équipe dynamique, un personnel professionnel, des lots de matériel de la nouvelle génération, Gabon Production a réussi de devenir une maison de production inédite. Ay photoshooting dans un studio autrement, ay photographes yu xarañ lool, des appareils de la nouvelle technologie. Ainsi, Gabon Production est la meilleure maison productrice du Sénégal. Des photos artistiques, photos de cartes d'identité. Vous les amis, vous les couples, venez Pour tous événement màggal cant mariage réception ba ci sax anniversaire contactez-nous ñu daal di couvrir seeni événement avec de très belles images des vidéos à haute qualité oui c'est bien possible ak Gabon Production en outre dans le cadre de vouloir servir la population sénégalaise sur le plan économique social culturel et religieux chaîne bu mag bii di Académie Médane TV est à votre disposition avec des informations qui vous seront livrées à temps réel ay journalistes ak i caméraman yu xarañ lool. contactez-nous au 77 585 57 36 wala ci 77 589 83 83 Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.